bu mak rek nga ci wara aussi so si duggu nak da nga ci wara duggu ak conviction duggu ci nak ak pas-pas bo xam rek liggéeyal sa gox wala sa réew mo la tax a jóg li ñu gis rek ñu ci ëpp ci ndaw ñi nak surtout ñom ndaw ñi dañu si rek duggu ndax intérêt dañu si duggu nak di top leader politique ngir rek am poste bu baax wala sax xaalis euh, bu ñu mëna am rek ngir fessal seeni ay poche taxaw setlu bi nak yamul rek fi ci Sénégal ndax nak dafa melni Afrique yëpp la ndax sunu njiit yi ku ci jël rek nguur gi looy njëkk a def mooy ut ay bien lu ci mel na kër tool oto ak yeneen yoo xam ne rek ngir suñ fi jógee ñoom ak seeni njaboot dinañu tedd ba faaw te loolu yépp nag askan wi ñu ngi koy subir te kenn du wax fii ci Sénégal tamit dañoo seetlu ni nguur yi fi jot a jaar yépp ah, noonu la woon waaye nag mbir mi ci nguur Abdoulaye Wade la gënoon fës waaye nag ak nguuru Macky Sall bi enrichissement illicite bi daal dafa mel ne dafa gën a tàggatembe ndax nag dëgg neexul ñëpp gisoon nañu fi waa APR bi ñu ci opposition bi ak waa APR bi nga au pouvoir

te daal seetlu woon nañu ni diggante 2012 ak euh, ba léegi nii sax Mansour Faye daal am na fi ay kër yu dul jeex ay compte bancaire yu fees dell ak ay millions ak milliards te xaalis boobu daal fan la ko war a jëlee ndax salaire 2 millions wala sax 3 euh, millions par mois mayewul loolu Mary Teuw Niane nag euh, nee na Mansour Faye alal ju bari yooyu yëpp muy xëpp militant wam yi jëlewu ko fenn rek fudul ci keesu état bi maanaam daal ci xaalisu askan wi te nee na nag loolu rek war naa yee askan ba yeewoo foofu te ndax ngir ñu bañ ko fa